Monsieur le ministre, pour accéder à l'émergence, il faut l'éducation. Le président de la République l'a bientôt compris. C'est pourquoi il a pris l'alimentation scolaire comme une de ses priorités. Et nous constatons que vous anticipez déjà à mettre en œuvre cette volonté du président de la République en ouvrant des cantines scolaires. dafa am le ministre am terrain télé réseaux sociaux yow yaa ngi ci lycée yi yaa ngi ubbi yaa ngi ci école yi yaa ngi ubbi kooku dafa naa ne daal xalaat naa ne suivre réseau sociaux yi ndax yow ku ne xam na ne yaa ngi ci terrain bi monsieur le ministre li ngay liggéey ci éducation nationale ñun gis nañu ko xam nañu ko gis nañ cofeel gi nga am ci xale yi surtout avec l' éducation des filles tey boo sañoon xale yu jigéen yi ku ci ne yaa ngi ci classe di jàng tey boo sañoon xale bu xëy balaa dugg classe dana ndékki yow loolu mooy sa politique socialement ci loolu nga nekk te xam na loolu mooy doxal am réew monsieur le ministre ndax yow comprendre nga ne tey xale boo xam ne dafa xëy te biiram amul lekk kooku mun te suivre en classe mënut a concentré wu moo tax nga taxaw ne tey damaa bëgg xale bu am cinquante francs bala ngaa dugg biir classe nga lekk ba sa biir fees nga mën a suivre en classe merci beaucoup monsieur le ministre kon tey ci sa biir rapport gis naa ni nga jëlee cantine yi en compte xam nañ ne bàyyi nga xel l'alimentation scolaire monsieur le ministre je remercier di ko encourager di féliciter la secrétaire générale de l'éducation nationale une femme de valeur une battante une travailleuse une femme ouverte ma di ko suivre nag barki démb la dem Cambodge la ko yëkkati woon mooy cantine scolaire kon ñin ñoo ngi lay suivre ñoo ngi suivre say agent xam nañ ne yéen ngi mu nekkoon nag dëkk boo xam ne ku ne xam ne décalage heure ba fa am et je l'appelais à n'importe quelle te heure bu ma ko wooyee wuyu ma wuyu na ma wax ak man sur la cadre du travail merci beaucoup secretaire général générale kon yow fan la teg xam nga ne liggéey moo la fa teg te éducation nationale ku ne xam ne ne li muy def cim réew te yaa ngi ca kon maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci vraiment ouverture boobu nga am di ñu déglu ndax ñun ku ne xam ne na askan wi ñoo ñu fi teg te askan ñuy liggéeyal monsieur le ministre melax nag gis naa tim vraiment jël nga leen en compte ñoo ngi lay xaar nag la communauté Sakari ñi ngi lay remercier bu baax a baax ndax nee nañ ren résultat yi ñu am gëj nañ ko am te cantine scolaire moo ko waral kon yow xam nga impact cantine scolaire ma dëkk nag département Linguère monsieur le ministre ñu am ay xale nekk yoo xam ne ay non-voyants la ñu ñu bëggoon nag l'éducation inclusive nañu si mën a dimbale ba mu wu foofu ñu am benn koñ bu nekk à Daara Jolof ñu di ko wax Daara Montagne gis naa tam ci sa rapport enseignant yi nga xam ne war nañoo dem ak les arabes te soxla nañu ko ca école boobu nga jàppale leen ci dimbale leen ci. en même temps au niveau de Daara Montagne ñu am fa benn problème am benn école bu fa nekkoon boo xam ne petite enfance lañu parents yi ñoo doon cotiser di fay amatuñu lu ñu lu waaye dañ leen mujj génne ba xale ña ngay taxawaalu te xale yooyu tey seen yaay dañ daan xëy di leen yóbbu ci biir école ba dem di jaay ca marché bi di am lu ñu am di ko indi ci biir kër ga kon bu fekkee ne xale bi dematul école. yaay ji ca biir kër ga lay toog di toppatoo xale bi monsieur le ministre ñooñu ma bëgg nga jàppale leen ci seen école boobu vraiment ba ñu ubbiwaat ko ba xale man fa jàng yaa tim une école bu ñu wax Sele Diouf boo xam ne tim petite enfance la ñu bëggoon nga dimbale leen ci la réhabilitation de cette école parce que vraiment ma ngay menacé wu pour bëgg daanu te bëgg nañ nga jàppale leen ci loolu en même temps nee na l' inscription des structures de la petite enfance les fonds de dotation alloués à l' éducation loolu tim nga jàppale leen ci monsieur le ministre ñun dañuy sant la président de la république di ko gërëm di la sant di la gërëm kon tey ñu xool ne yow liggéey bi nga xam ne la président de la république daf la koo dékk comme la mu la waxoon boo nekkoon ca enseignement supérieur bi la nga war a def defoo ko fa kon tey duñu yëkkatiwaat éducation nationale di la ko jox ñu gis taxawaay bi nga taxaw gis liggéey bi ngay liggéey gis ni nga duggee ci biir Sénégal gi nag fu ne nga defa dem ndax tey boo sañoon fu ne école la nga fa tey boo sañoon li ma gën a neex ci li may wax mooy les jeunes filles yaa ngi taxaw ci seen njàng mi bu baax a baax a baax a baax te gis naa ni nga ciy taxawee cantine scolaire yi gis na ni nga ciy taxawee tey boo sañoon dëkk bu ne cantine dafay am ndax gis naa ci sa rapport ni nga ko waxee te la ma wax léegi de preuve a l'appui la am tey boo sañoon xale bu ne bu xëyee balaa dugg biir classe dana ndékki merci beaucoup la présidente